bi nga xam ni jamono gi mim réew di Sénégal daal dinay yëngu bu baax a baax ci coow bi nga xam ni kii di président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na kay jël nommé ko fenn ci nga xam ne moo di ci ambassade fi jëm ci fi nga xam moo di Inde loolee sax tax na lenn ci journaliste yu bëri rawatina journaliste bi journal bii di quotidien daal di bind ba tax na sax mu daal di jur coow coow loolu mën nañ ne ñëpp ci Sénégal gi le ku nekk yaa ngi ciy àddu ak di ci wax ñii di ci wax li nga xam moo jëm ci wàllu politique ñii di wax li nga xam ni moo jëm ci ak farandoo ñi ni di wax ak li nga xam ni moo leen di arrangé ci boobu jamono ñenn ñi nga xam ni ay takk der te nekkoon fi ay colonel wala lu ni mel retraite ñoom tamit ñu ngi ci plateau yi di leeral ak askanu Sénégal gile ba tax nag ki nga xam ni moo di maam biram Wathie dal di indi ay leeral jëmee ci bu baax a baax askanu Sénégal gi le nañu dellu seen xel ci ginnaaw ginnaaw bi nga xamee moom Souleymane Kandé di général Kandé nekkoon foofee sa Ziguinchor nekkoon fa colonel ak ki nga xam moo di président Macky Sall amoon moom confiance ba def ko lim ko def tey jile waaye nag yooyu la indi ay nomination yi nga xam ni moom am na ñi nga xam ni ñoo bokkoon moom colonel ci jamono googu le waaye tamit am na ñi nga xam ni ay colonel lañ li moom waaye nag moom mi le général Kandé ñooñu ñoo ko ancien te gënoon kaa yell boobu le poste waaye kat ba léegi ginnaaw bi nga xam nomination bi la kii di chef suprême des armées moo ko defoon muy président sortant bi di président Macky Sall dañu daa gis ni moom Mame Birame wax di xamle kenn waxu ci woon kenn àddu ci woon ndax kat dañ jàppale dénk ki nga wóolu waaye nag kooku ma jamono googu Macky sàll amul kenn ku mu wóolu woon ku dul général kaana bi de ba tax na ana lan moo fi ñar dañ koy màcc lan moo tax Sénégal gi ñu bëgg daal di jël ji benn mbir visionné ci ñoom ñëpp daal di ne général Kandé lii wala la wala lée loolu nag amul benn yoon bi nga xam ne askanu Sénégal war nañ cee def ak benn jiix a jaaxa ca loolee sax moom général moom mi nga xam moo di Mame Birame Wathie daal di indi analyse am daal xamle bu baax a baax jamono guñ toll nii le mun nañ ne dañ daal gis ni Sénégal luñ fi yàgg gis ak ci lenn ci li nga xam moo di yéen dëkk yi le bépp gouvernement bu yees bu toog bu nekk bu nekk bu toogee dafay jël lenn ci ay nomination ñu mu fal leen jamono guñ toll nii général Kandé buñ ko dindee teg fa keneen loolu lu war daal di war la bu leen di fàtte abonné aimé partage